xam naa ne bokk leen ci élection locale parce que fii élection locale du fi am waaye nag mbokk yaa ngi réew ma kon nag na ngeen leen wax ñu jàppale liste Benno Bokk Yaakaar boobu mooy liste bi ma cautionné euh, bu ma ko waxee noonu nag xam dana am politiques, ko politiqué ndax amna ci si gox yoo a. ne ben ben autorisé à ñu am fa ñaari parce que dañ doon bañ suñu voix di tassaro waaye loolu touti gox la ku ci melnu Kolda nous nañ mu démé nous ku ci melnu par exemple voilà yi ci des yi ci des nag mom amna aussi yeneen gox bu ñu ne alors au lieu nga tere Moussa bàyyi Demba mu dem da nga naan yéen ñaar ñëpp dem leen ku gañ a baax ma waaw dorom bi du génn gaal gi waaye nag am na ñoo xam ne dañuy mbubboo président te cautionné wu ma joxuma leen benn caution voilà loolu lu ñu la balaa élection yi jot bi def Sénégal mënu ko fa mënu ko ci réew mi xëy na lool noonu lañu yàlla bindee kon ñu nangu ko waaye nañu yokk suñu taxawaay yokk fulla ak fayda nit nag bu la yàlla joxee doole jox la xel danga ko war a jëfandikoo waaye nga bañ ci gaañ bañ ci gaañee parce que am na ñoo xam boo leen toppee dinga leen gaañ te du ko jar kon na ngeen continuer seen taxawaay réorganiser waat parti parce que amoon ñu xaw a mer suñu biir toog moo andi woon sax nit ñi jàpp ne fii mën nañu wëlbati mbir yi te fii li fi fi la a tous les responsables sans exception salut Thioba parce que l'ai pas fait au début je salue tout le monde salue tout le monde